شهر بركة يغشاكم يغشاكم الله فيه الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم الملائكة mu ni koor nag ñetti façon la sawmul umumi mooy kooru ñu sant ndaw bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi bànneex waaye yem ca nee mi am na sawful sawmul xusuusi mooy koor sa bët woor sa nopp woor sa làmmi woor sa loxo woor sa tànk woor doo dégg lu dul lu baax doo ko déglu doo gis lu dul rafet doo wax lu dul lu rafet sa loxo du def lu ñu koy yedde sa tànk noonu kooku nag beneen koor la nee na waaye am na beneen koor bu ko gën a kawe mooy am na ci nit yàlla yi non seulement seen yooyu day woor waaye seen xalaat sax day woor sa xalaat woor sa xalaat du dem ci dara lu dul noonu sa xel mbiri àdduna xalaat yu ñaaw lépp lu dul yàlla danga ciy téye sa bopp nee na nag boo mënul boobu nga mën bi ci digg bi nag moo tane nee na loolu tax ma yonti wax ni man lam yada qawla zuuri wal amala bihi fa laysa lillahi xaaja fi an yadaa taamahu wa sharabahu koo xam ne kii koor taxul nga bàyyi waxu neen ak jëfu neen xiif ba ngay xiif xëy suba ba jant soo lekkoon naanoo yàlla amu ci soxla yàlla amu ci soxla tax boo wooree am na ñu bari xam ne dootu ko ku woor du xuloo ku woor du wax lu ñaaw ku woor du xuloo kenn yooyu yëpp nag soo ko teetee آية بدون لعلكم تتقون لعلكم تتقون بودي في يوي ييب أنت بوقت بي واخ سي بن حديث ni suumu tasixu woor leen ndax dafa am lu muy jëriñ nit nag gannaaw ba mu jëriñee sa rox dafa am lu muy jëriñ ci sa yaram te sa santé parce que dafay noppal sa estomac liggéey bi muy liggéey diiru at nga noppal ko tuuti nag diiru at yaa ngi añ yaa ngi reer yaa ngi ndékki waaw ba at mi jeex quotidiennement ndékki añ reer ñenn ñi sax di ci boole njogonal ak ma demoon Banjul faggu suma benn bokk doomu ndar mun ma kaay ñuy njoganiku man ni ko waaw man ko mi jigéen ñi sax ndoguñu dootuñu njoganiku kenn talatu ko yooyu yaa ngi njoganiku man <laughs> ko yow daal te yow ba bàyyi nga xanaa la mu demee ndar ni ndar daal ñu xam mu xam maa reer di xool di néegee <laughs> waaw fooy jëmati atu yàlla suba soo xëyee ndékki añ reer waaye na am jamono nga noppal ko usines yi ci réew mi chaque année dana am wér wu ñuy jël noppal usine bi nag bu dee usine buy ràbb dootul ràbb bu dee buy defar meew dootul defar meew bu buy tomate dootu ko dootul bu buy boisson bu ne danañ ko noppal travailleurs yi doom noppalu ju tuuti ñu raxasaat ko serré boulon yi euh, recevaat ko def ci huile yaram it noonu la mel da lekk añ ndékki añ reer ba koor ñëw na nga noppal ko tuuti nga noppal sa mbaq noppal say butit ci togg bi ñuy togg ñam bi ñam bi ngay wan ñoo koy toggaat ba segg ko li ci war a nekk ndox dem nekk tuur ndox li si war a nekk leneen dem nga génn ko feneen li si war a dem ci seddare dem ci seddare waaw mu ko def at waaw nga noppal ko nag benn weer muy weeru koor boo xëddee dootoo lekk ba ngoon ne ne noppal gi nga koy noppal dafay noppal sa estomac ba du am man damay sama biir bi day ñenkar bi lekk ko indi nee na daf lay may itam nga boo ci jigéen loolu lekk rek mu daldi rees sama xol bi da day takk yooyu yëpp lekk ko indi oto bukki bi ñu ko ne feebar yi bu la ci gënal mu reer mu ni xër ñeñ ñi moom rekk koy indi waaye ñu ko looy gën si feebar yi muy xër ñeñ ñi nee na boo waree da ngay noppal sa yaram te danga koy segg dangay seggaat sa deret ci parasites yi xorom yi des desitu diw yi yooyu yëpp bu koor jotee koor daf koy segg ba mu set durant weer bi niñ la ko waxee boo ko defee noonu nee na ndax mbaq buy fees toujours toujours te du noppalu mën na indi plusieurs maladies feebar yu bari mën na ko indi ci nit ki nee na koor dafay tax doo tux ma tux ma jaxase ay ñam yu bari moo koy indi nee na amaa ñi nga xam ne dañuy woor te lu ñu gis jënd ko waaw te loo romb ci mbedd mi jënd jënd caaf jënd mburu jënd beñ jënd jaxase waaw yooyu nga bëgg boo waree nga lekkaat ko moo bañ a waree yow koor ka muy jël yow doo ci ba wala nga xam ne sax danga mujj yow li ngay lekk ci koor moo ëpp li ngay lekk ci boo woorul

karjaag ak yooyu yëpp di lekk toujours toujours sa yaram di dajale graisse yi moo la koy indil mu ni moo tax yonent wax ni doomu aadama feesalul ndab lu yées biiram mhm. doomu aadama feesalul ndab lu yées biiram foo toll di feesal si biir gi nga moo tax nit yàlla yi jooxun wa sufmtum wa azbun sahru ajfaani noonu la Cheikh Al Hadji Malick wax nee na néegu bi ngeen bëgg a dugg muy néegu yàlla ñeenti ponk pilier la am jooxun xiif sumt noppi wa azlun isolement di wéet léeg-léeg sëru ajfani di fanan gudi di fok di jamu yàlla moo tax am na ci ñoo xam ni tuuti la ñuy lekk dañuy ndékki bañ a añ ba reer am ci ñoo xam ne sax yoon parce que ben yoon par jour yar sa bakkan ba benn yoon ngay lekk par jour yaay seet heure bi nag di diggu bëccëg walla guddi gannaaw tàkkusaan walla suba teel ñu ni nag soo mënul benn yoon ba nga def ñaari yoon lekki suba lekki ci guddi ñu ne amaa ñetti yoon nag siif siit la da ngay xaru lekk ñetti repas par jour moo gis nga réew yëpp génn nañ ci ñetti repas Sénégal rek moo ci des foo dem boo demee ci réew européen yi réewu africain yi ñaari repas la xam waaye Sénégal dañuy ndékki añ reer ba léegi bàyyeeguñ et puis nit ñi tàllatuñ ko sax man nañu réglé waat ñu ni boobu da ngay def da def ñetti parti sa biir def ko ñetti parti sulusul li taami wa sulusul li sharabi wa sulusul nafsi yi waaw damaa lekk ba mënuma noyyi fa naroon a def noyyi fa nga def ñam moo tax mënatoon noyyi ci biir noonu la da nga def ñetti parti bi parti ndox bi parti ñam bi parti non noy. fi ngay war a noyyee nag boo ko defee ñam dootoo mën a noyyi ñu ni mbaq muy néegu jàngoro yi aar ko nag ba doo ko feesal toujours mooy mooy saafara sa mooy saafara sa kon nag na ngeen tàmmal seen estomac euh, lu yem ci lekk boo ko xase tàmmale xool amoon na benn nit yàlla boo xam ne bés bu nekk ñetti kuddu lay lekk te feeñul ci yaramam feeñul jeexul deful dara ni nit ñi mel rek la mel waaye tàmmal na biiram rek ba ñetti guddi yooyu doy noonu su ko defee nag yonent bi wax nañu sooy dog boo waree mu bëngoon na nga doge tàndarma soo amee benn soo amee ñaar soo amee ñett soo amul tàndarma nga naan ndox mu ñuul nga doge ndox mu ñuul moo gën nee na ndax ko dafa lay dimbale ci faj say feebar neena na bokk na ca am yaram bokk na ca soo dul gaaw a reesal sa ñam bokk na ca boo amee feebaru saw mu bari neena na bokk na ca tension nee na bokk na ca jaare neena bokk na ca lekk ñam wu am diw yooyu yëpp koor dana ko faj nee na yonent bi nag wax ni booy dog na nga sant sa borom fàttaliku lim la defal allahuma laka sumtu wa ala rizqika aftartu faxfir li ma qaddamtu wa ma axartu yàlla yow laa wooraloon booy woor da ngay woor ngir yàlla ci sa xéewal yi nga ma defal sa wërsëg yi ci lay dog danga ma jéggal bàkkaar yi ma jiital ak yi ma mujjee yépp nag mu ko jéggal mu ni booy dog ida aftara ahadukum fal yuftir ala tamrin fa innahu barakatun yonent bi ne ku wóor ci yéen ba ngoon buy dog na doge tàndarma ne barkee nga ca ne bu amul tàndarma nag nga wut benn weeru ndox ndox bu sell bu raxul dara bala ngaa du naan dute wala café na nga doge tàndarama na jiitu ci sa biir wala weeru ndox nga guux ci ñetti guux nee na parce que tàndarama ñam yi nga lekk te mu am suukar te suukar su su baaxul ci sa yaram soo lekkee tàndar mu mooy muuci waat suukar su bon soosu ba du la lor moo tax mu am solo nee na xëy na sax loola nekk ci tàndar ma ci ay matière yu amal nit njariñ moo tax yonent bi digle ni del doge tàndar ma neen ndax yu suukar yi suukaru betterave këru nañ ko waxee ti jàmm suukar ñu transformé ko defal la ko suukar nga jënd ko ca butik ba ñëw def ci sa taas naan suukar boobu baaxul moo nu jox jabet ñun ñépp waaw yi am jabet yépp moo leen ko jox Mauritanien yi noonu Marocain yi noonu parce que ñoo gën a bëgg suukar ci nit ñi mag ñi dañu bëgg suukar ndeysaan dafa am benn góor mu ñëw sama néeg toog ma jox ko chaise mu ñu indil ma kafe man nag sama àdduna yëpp mooy café sëñ Mansour si daf ko xamoon ndeysaan yal na ko yàlla dolli leer ba bu ñu àndee di tukki bu ñuy wàcc rek mu ne bu ngeen bëggee ngan gi neex jox ko café de <laughs> ndeysaan góor gi nag ñu indil ma taasu café ma ne ko góor gi daan naan kafe mu ne ah man du du nekkul woon saay mbir waaye comme yaa ngi ciy laal rek ma laal ci ma ne xale bi indi ko taasu kafe mu indi ma ni ko ma defal la si ñaar ci sukkar mu ni tekk ba si mun ma def ci yent ma def ci yent jox ko yëngal jox ko mu mos ma dolli li ma dolli ñett xanaa dafa rus a laajaat mu xool ma xool bi asamaan ma dooleel yaar eh, ah, góor gi su suukar su saf ëpp na de waaye mag ñi dañuy bëgg suukar nit ku ñuul dafa bëgg suukar marocain dafa bëgg suukar nous dañu bëgg Nous moo tax ñu ëpp jabet ci xeet yi ñu ne tàndarma nag dafa làmboo ay matière foofu rek lay jeexale dafa làmboo ay matière euh, li wax fructose Euh, fructose mooy bi nga xam ni du la lor suukar boobu mais saccharose nag moo bari ci suukar yi ñuy jaay ñu di ko jënd di ko attaaya di ci naan café di ci naan dute moo tax bu baree rek ñu am jabet mais suukaru tàndarma nag du jox kenn jabet mook suukaru fur bi ñoo yem suukaru fur bi ñoo lu ñu jox kenn jabet boo gisee lu jabet rek suukar si ñu jële ci betterave wala bii ñu jële ci jàmbu suukar naan ko ñëw dina ko jaay kooko nuy jox jabet ñu ne tàndarma dafa am li ñuy wax potassium tàndarma dafa am li ñuy wax sodium dafa am calcium dafa am magnification te yooyu yëpp dañu baax ci sante doomu aadama ñu ne xëy na sax loolu moo tax yonent bi digle ni sooy dog na nga doge tàndarma nee na ndax yooyu bu manqué ci yaram rek daf koy lor surtout siyom ci ñi mag lépp lu ko am war nañ koy jëfe ndax dafay résister ak màggat nee na loolu lépp nag moom la tax yonent bi conseillé kii woor na jël benn tàndarma walla ñaar walla ñett yonent bi nee na sooy woor it na nga xëdd nee na xëdd dafa nekk lu nécessaire mu ne rawate nag ñi nga xam ni dañuy liggéey maanaam kuy liggéey ci usine wala ñuy liggéey ci atelier yi wala ñuy liggéey ci tabax yi nee na ñooñu di xëdd dafay baax ci ñoom nee na loolu moo tax yonent bi ni te sax saxaru fa inna suxuura barakatun na ngeen xëdd ndax xëdd barke la mu ni mu daan wax ni na ngeen dimbali ko ci ñamu xëdd ndax bëccëg bi ngeen mën a résister coono koor na ngeen di dimbali ko ci ñamu xëdd ndax bëccëg bi ngeen mën a résister coono koor mu ni na di nelaw tuuti ci koor ci bëccëg bi ndax guddi ngeen mën a taxaw ni ngeen war a taxawee naafila wala ngeen def euh, jaamu yàlla ci guddi gi nee na mu dellu wax ni nit ñi du duñu dañ di nekk ci yiw fekk ñu ngiy gaaw a dog di yéex a xëdd loolu la bëgg nga gaaw a dog bu jant yi so rek dalal di dog xëdd itam na nga nekk ba mu wóor ni mi ngiy jege nga door a xëdd waaye ñu naan man mënuma xëdd damay reer door a tëdd santaane ko dañu bëgg nga xëdd nee na ndax rëppaa xëdd euh, dafay dëgëral aji woor ci lu mu bëgg liggéey ci bëccëg bi te dafay indi itam équilibre diggante ñaari repas yi ko euh, dog gi ak xëdd bi ne la la moo tax yonent bi digle ñuy def sieste sieste sieste nag xam naa nit a cee yegg man moo ne euh, déggee ñu ni diw dafay sieste dama koy ñee ñee ndax mosuma sieste sama xel sax mosu ci rek te pourtant boo bëggee di jaamu yàlla guddi dangay ngay def sieste soo ko defee rek dangay ngay gis lim la jëriñ ci guddi gi soo dee weeru koor it yi ñuy def soo bëggee def ko carton rek waaw nanga na nga na nga na nga dab leneen su ko defee nag ko war na ci wépp jullit boo xam ne mu kàllaf la moo xam góor la moo xam jigéen la su fekkee ne yii tax nit woor ñàkk woor dalu la nee na na nga woor fa man shahida minkum shahra falyasumhu ay fa man xadara subuuta shahri ramadan wa sahihun muqimun falyasumhu maanaa boo tukkee sañ ngaa dog waaye xam naa fii ci Sénégal de tukki bi tax nga dog daal bare tufi de surtout danga koy fay rek fay ñu ngi ko nattale quatre-vingts kilomètres soo ko génn tukkee rek sañ ngaa commencé dog su paasee soo dellu nga fay walla ki feebar te ragal ni su continuer woor feebar bi dafay yokk kooku sañ na dog wala kii dëkk sax ci dëkk bi wér na waaye yëg na ni bu wooree mu lor ko kooku sañ na dog président ba ñu nekkul dañuy liggéey ci métti yi ci biir mii nii lima ughliq wal khatim lima sabaq sallallahu alayhi wa sallam nee na ku julli ci man benn yoon nee na ak ki nga xam ne dafa ëmb jigéen ñi nga xam mbokk yi jigéen ñi nga xam ne dafay nàmpal bu wëree ni su su waree du am soow mu doy doomam kooku sañ na dog pour sauver doomam ki nga xam ni dafa ëmb te mu wër ko ni su waree dana lor li ci biiram kooku sañ na dog wa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin axar yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون يعني على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين su ko defee kon mu mel na kon ñu ngi ci بي ñu ngi door dugg ñu bàyyi ko xel bu baax a baax pour profité ci li ñu rëccoon ci weer wi ci at mi ñu jéem ko ci dabu ci jàmm yàlla ci jéggal ko ci nawafil ci sarxe ci togg jox ñu néew ñu doole ndegam am nga kattanam yooyu yëpp nga di ko def yooyu yëpp nga di ko def ngir dabu li la rëccoon bakkaar yi nga def ci at mi mën nga koo dabu su ko defee tabarakallahu ñu nuyu nag ñu dooru nuyoo dañ daan njëkkee nuyoo ñun nag tey nuyoo la ñu mujjee ñu nuyu premièrement sëñ Mansour ak i rakkam jabat sëñ Moustapha yëpp gannaaw ba ñu nuyoo ki nga xam ni tey mooy suñu xalifa di sayidatu Umu Kalsum ndeysaan an ko fekk mu toog ma ne ah sama soxna si nag day léegi màggat na lu bëggee woon sañse suñu kër yëpp mu ci daq gënoon bëgg sañse ndeysaan bu demul fenn yi day sañse ba jekk toog ci néegam jàpp njàmbur soo ñëwee defe ni palais Bourbon la jëm ñu ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu sëñ Mansour di ko ziar ak rakam yëpp du lim parce que itam nag sëñ Babacar daf daan wax ni kenn du am njaboot lim ñëpp ngir ragal gémmiñ kon ñu ngi nii ñëpp ak ku sëñ Moustapha jabootee rek góor ak jigéen ndaw ak moom ñu ngi nuyu délégation bi nga xam ni ñoom la fi président Macky Sall yabal mu di sëñ Mansour mi toog di suñu mbokk suñu cousin di suñu rakk mag ci xam loolu ba lu ñu xew la moom lay yónni mu ñëw ci biir mbokkam toog loolu kontaan nañ ci bu baax a baax ah waaw dafa am ñu ni woon ah Macky bu ñëwee sëriñ si daf leen di folle <laughs> ma ne ah sëriñ si Macky dafa xamoon lu leen fal biñ leen kaalaa daf ko fekk sëriñ bu jaar yoon kenn du ko folli ku jaarul yoon nag jaaroo yoon yàlla sax bëggu laa gis parce que yonent bi laylatul isra ba mu demee yàlla daf ko teral comme ni muy ñuy terale chef d'état bu visité ji réew daf ni jibril ànd ak moom won ko li ma am yépp sama kéemaan yépp Jibril di ko woon exposition yépp ba ñuy ñëw ci ki nga xam ni mooy gardien safara yonent bi nuyu ko mu nuyu ko reewul muñul te place yi yonent bi ànd ak Jibril yépp malaaka yam fa fekk kontaan nañu reere nañu nuyu ko yonent bi ni ko waaw kii kana wax ko Jibril ñu ko moom reewul ñu ko kii mooy gardien safara ñu ko ah leer tax reeroo mu ni ko doo ko wax mu ubbil ma safara ma xool ko jibril wax ko ko mu ni ko na ñëw mu ñëw mu ubbi rek safaru buur jibril ni ko doo dal ki tax ñu bind la moo la bëgg xool mu dellu si ni rëm mu yër nag di gis ay image ci biir ay image mu ñu ko image yi pour lan la yent bi wax ko jibril loolu ko image ba ngay séen góor gi nga xam ni bu guddi jotee mu bàyyi fi jabaram ju ko lew dem wuti jigéen ju ko lewul ëllëg nii la ko yàlla di mbugale mu ne ko bii image la mu ne ko kii jigéen ji nga xam ni dafa fexe ba dugal ci askanu jëkkëram ku ca bokkul boo liggéey nii la ko yàlla di mbugale mu ni ko bii image la mu ni ko ki nga xam ni day jël diine di ko mbubboo di ci nax nit ñi di ko dunde bu ëllëgee nii la ko yàlla di mbugale ko bii image la mun ko bii dimanche ëllëg ñi nga xam ni dañuy yéexi julli di ko foyee boole tisbaar ak takkusaan boole timis ak gee te julli ga du baax bu ëllëgee nii la ko yàlla di mbugale ñi ko ko limal nag waaw sëñ bu bon kay yàlla sax bëgg ko gis nga ne koy mbugale ma ni ah ñun de wanaguñu ko ndax lu nu xew la mu yónnee ca def ca teraanga te fu mu dajeeg ñun màggal ñu kon nag loolu nit ñi wax nun gisuñu ko kon ñu yóbbante la ngërëm ci moom seen ñëw yaa suñu doom ju baax ji nga àndal wala muy soxna Aminata Mbengue Ndiaye gi xaalis Mbengue gi jur ko ci alxaaji Saalih Mbengue alxaaji Saalih gi ak Seydi alxaaji Maalik defe naa ni war ngeen mën a ànd ñëw fii ci kër sëñ Moustapha Sy kon ñu ngi koy gërëm ndax ku la defal lu baax na nga ko gërëm ku la defal lu baax rek na nga ko gërëm te lii teraanga la kon ñu ngi koy sant bu baax a baax nga jotal ko ko bëgg ci taxawaayam ñu gërëm itam Euh, mbokk yi fi nekk yépp ay personnalité ci diine ay personnalité ci àdduna ay personnalité ci aada ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci koor gi li sëñ nit ñi mbëkkante di xuloo bu ñu sañoon toujours mooy am grand sëñ de Dakar ñaar garaawul mësu fi jóg mësu fi jóg Ibrahima bàyyi ci li ma fekke man bàyyi déedéet déedéet ba Alaaji Musa Jóob ba mu fi nekkee Alaaji yi Jóob a ngi fi woon maa ngi fàttaliku ñu ñëw Dakar man Serigne Cheikh Serigne Mansour ñu ànd ak sama papa muy premier voyage Dakar bi ñu ñëwee nag ba am quelques jours sama papa wax papa Babacar Diop na ànd ak Cheikh yóbbu ko mu nuy ji Alaaji Musa Diop na ko dem nuy ji Mour Diop na dem nuy ji Ousmane Diop Kumba Paté na dem nuy ji Alaaji Ibrahima Diop waaye nañu jëkke ci seen nijaay Amath Diagne Daïra Amath Diagne Daïra mooy jox suma yaay sagari njaam mun ko yóbbu leen yóbbu ko mu nuyu ñooñu seen Cheikh ne ma kaay gunge ma boobu ay xale lañ ñu demee seeti mm, nijaay Amath Diagne Daïra ba jóge fa nag ñu door dem seete Alaaji Musi Diop Alaaji Musi Jóob nuyu ñu ndeysaan may nu xaalis wax wëllëreem ak góor gi wax yépp waxe nag indi affaire Ndakaaru ni tubaab yi ñoo ma jox fetal gi nii man la ñu reconnaître comme grand signe de ba ñu demee kër Baay Ibrahima Diop moom tam mu wax a wax génne benn jaasi ni maa la sëriñ Ndakaaru man la tubaab yi nangam nangam bi fi Baye Moussa Diop jóge Abdoulaye Diop yëmbal moo opposé Ibrahima Diop biñ fi jógee ñoom ñaar Momar Marème ak du Diop Moussa ñoo xëccoo Dakar yëpp ànd ak du Diop Moussa Senghor jox ko Momar Marème ma dem seeti de Senghor ma ne leen pourquoi du jóob musu suma doomu ndeyee man ko lu tax muy Dakar yépp ànd ak moom nga jox ko ko mu ni ma mais il y a une forte pression politique de Samba Gueye et Kabirou Mbodj te ñëw moom Dakar m'a fi accepter Serigne Dakar bu ñu la loolu ma sa nga wax keroog ni may il une forte pression politique de Samba Gueye et Kabirou te ñoom laa jox Dakar ni ma yow soo lu ciy sa yoon ma ni ko du Diop ñoo bokk ndey deuxièmement suñ ñaari jabar bokk ndey ak bay mu ne ah bon donc oui mu ne ah su ma ko xamoon nag du ma du ma du ma du ma wax ñu bàyyi ko du ma wax ñu bàyyi ko waaye nag xaw ma ko woon te dañ ma ni moom para la para para Sénégal para Sénégal dañ ma ni para la te ndakaaru nag waaw du jëm sa mi jur Abdoulaye Makhtar malika mi ñoom ñoo moom Ndakaaru ñoo ko war a farlu mun ma waaw je sais je sais Abdou Aziz mais politicien du xool loolu ñaari yoon xuloo nañ ko bii mooy bi ñu jëlee Lat Dior def ko héros national ma dem man ko mi Cheikh Oumar Foutiyou mooy héros national moo ko mu résister tubaab yi ci aada ak ci diine ba def li mu def yëpp wax ko li mu dem dem Mali fi mu jaar yëpp dem ba Arabie Saoudite dem ba Palestine dem ba Nigéria moom Cheikh Omar Fouti man kooku moo war na ko euh, héros national président Senghor mu ne wéy wéy ci yéen ci yéen waaye pas ci ñun politicien <laughs> c'est ça bon نجيكي في خخ بدم خخ بدم بمو وام من يوم ما كم دو جو موسى صدوم ليلة لين بعند وقت مو جبو أك ممر مرة منك أرجوين من دفر كولي دفر كولي دفر كولي ما دم وقت كم مني ما وام من مو ميشي إن دكارو كمو su ko waa Dakar nangoo gisuma ci len lu ay way nak Dakar ko mo gëna gi ñu bari ci mag ñi maa leen ni leen jubali leen mar ñu jubale leen jël Momar Marème mu jitu def du job adjoint mais yalla may def lu ko so jël du job yobbu grand Serigne Bachir Diagne ñëw Serigne Bachir Diagne ñoo bokk ndey ak baay tudde na doom bu am ñaari jabar ma suñu teqali ko ca daara ñu indi ko jële ko Dakar indi ko Tiwaawan sama bàyyi jox ko bàyyi Amadou Loum nuy ànd ndax yaayam ak sama yaay nii la yaayam moo doggali suma yaay ñu song ko man ni ah ma nangu ñu songu Basiir ma daw dellu gannaaw damay ànd ak moom sama yenn ko ci mbir waa Ndakaaru waaye Basiir moom dama koy défendre dama ko défendre jusqu'au bout jusqu'au bout Abdoulaye Wade di ñëw wàccee ko Basiir yu mel na kaani di ko attaqué guddeeg bëccëg suba ngoon Abdoulaye Wade woo ma ni ma dima dégg Basiir Njaañ sa mbokk la te sa xarit la mi ngi dal ci sama ko te tuwuñu ko man ko ya ko togn mun ma luma ko tooñee man ko danga ko fekk ci teranga nga wacce ko te sa yoon nekku ci di wut sa serigne dakaaru man ko te sam papa neena ko teral mu bëgg li ni bëgg teranga ko tedd dil mu bañ ni mu bañ tedd di Ya ko togn man ko te gis nga bashir ko yalla dol leer fu mu tedd jambar jojo

lii itam amul solo bu ko nit ñi grave la seulement li ma d'accord rek benn néeg ñaar di ci xëccoo bu doon ñaari sëñ de Dakar mais benn néeg la Marim Diom Maxtaar moo jur Bachir mu jur kii moo jur Doudou Diop Moussa mu jur kii pourquoi ngeen di xëccoon Dakar seulement nit ñi nag may la ñu tuuti nit ñi nag defaree lu yàqu léegi dootuñu ko def dañuy gën a yàq rek di gën a yàq mais loolu danañ ci jóg waa Ndakaaru danañ ci jóg dëgg la Dakar lébu yi ñoo ko moom mais ñun lébu lañu nous sommes des sama papa am na ñaari soxna lébu jur ci ay doom sëñ Mansour ngi nii lébu la mbaaw gii la dëkk Sidi Ahmed Sy ngi nii ci Ritière Habib Sy ngi nii toog waaw sama ñaari soxla lébu la amoon sama papa ñetti soxna lébu alors sëñ mii suñu taw Habib a ngi nii toog alam lébu la Seydil Hadji Malick jël maam Anta Sall magi Dakar ñoo ko ko jox ndax daf daan ñëw Dakar di dal ca kër góor ga nduuru ba góor ga gaañoo Maodo toog ñëwatul dakaar ca màndoom ba ñëwatul Dakar ñëwatul Dakar ñëwatul Dakar ba maggi Dakar yi def délégation dem seeti ko ñu ko lu tax ñëwatoo mu ni ah ñëw di teg gi fa ma dal ngor mayuma ko ñëw di dal jigéen nit sharia mayuma ko loolu Seydi Hadj maggi Dakar defee délégation fekk ko mu ni kër de góor gi Ndour Ablaye Ndour gi ma daan dal ngor mayuma ma ñëw teggi ko te ñëwet dal ay jigéen sharia mayuma ko ma faf toog ti wow mag ñi ñëw dénk ko soxna si mu am ko waaw moom tam am ci léegi waaw sëñ Moustapha am na ci ñu sëñ Habib ni sama papa Habib wax naa ko ni ñett ñaari jabar yi libu la amoon waaw sëñ Cheikh Tidiane am jabar libu ay dada yaayam ci libu sekkeen yi bokk tëngéej ca la bokk waaw Papa Malick suñu caat bañ na ko sax ba moom nee na moom mook Serigne Mbaye si ñooyam ñu ne man ne xanaa du ngeen ñaare <laughs> ñu ni ma borom parti boobu dëkkoon ndar nu mu tudd ma ne Ablaye Dieye ñu ne allah wahidun <laughs> ma ni waaw ñu ni ma ah kon allah wahidun rek ñu nekk ci benn bi rek waaw kon ñun ay lébu lañu am nañu droit bu baax dugg ci te daañu ci dugg wax waa Dakar ñu wax seen ñaari doom yi ñu bàyyi lii

Abdoulaye Makhtar ñoo bokk ndey seen benn maam moo jur kii jur kii waruñoo xëccoo ñu seet li tax ñu xëccoo ñu jubale leen ñu bàyyi kenn bàyyi ci ñu dem continuer loolu nag danañ ci jóg man dinaa ci sol dal incha allah ba lépp nekk ci jàmm ñu bañ ko def rek événement déedéet bi ñu ko defee fii Ndakaaru loolu moom benn néeg la Mariam Diop Makhtar moo doon sama wëllëre yaay su ñëwee tuwaan sama néeg yaay lay dal ci biir néeg ba ñooy bokk néeg séq lañu séq ñoo ko xam bi muy dog mi ngi taxaw kere ba ma jëlee soxna Serigne Cheikh ñëw soxna saa ngi tëdd ma ni ko dafa mel na dafa nekk ci waajtaay bi mu ni ma jàngal ko yaasin boobu nun ñaar ñu ngi taxaw kenn ñetteelu nu xanaa soxna mu xayri mi taawam bu jigéen mu commencé jàng yaasin soxna si xippi ni ko duma dee hôpital waxoon naa leen suma néeg laay dee ni pat mun ma am nañ ko génn maa ngi jiitu jiitu waaw pour apaiser esprit njaboot bi waaye indi ko ci guddi gi ma jël sonn si yóbbu Mariam Diop Maxtaar xëy di ko indil ndékki ñu ne ko jël nañ ko biig mu daldi aw yoonu Tiwaawan fa la neuf jours suma yaay dóor yi génn àdduna ñii ñoo bokk ndey suñu néeg yi benn la sama néeg ndey ca Kaolack buy ñëwee Dakar kër Marine Diop Mokhtar la ñuy dal moo jur Moussa du Diop Moussa moo jur Bachirou Diagne ñu bokk benn ndey lii waroon diggante ñaar ñi nañ ko dox mu rafet ma ba noppi duut jóob ñu may ko sama doomu nijaay Ousmane mari yeetu Ousmane ak sama ndey ñoo bokk ndey ak bay ñu bokk néeg bu ñu jëlee jabar njabootam ngi ni ba dañuy ñëw di ma seet si barki dem rek lañ fa mujj jóge Dakar ñam ci am bokk ak samay doom benn ndey waaw ñii dañu mën teqali nit ñi ñoo dul defar lu baax rek parce que de wax dëgg moo leen yombatul te yonent bi nee na bu ñu demee ba kenn dootul wax ku tooñ yaa tooñ bu ñu yëboon nañu tàggi àdduna nañu hmm. tàggi àdduna la wax de yaa tooñ nag kenn du ko waxee ca mbedd mi ñu ko wax ñoo koy war a wax fekke ko ñu waxante lu baax mais lii jekkul te du jëkk waaw vainqueur ak vaincu du am mukk seen diggante fii nu toog nag laa koy waxee ba ñëpp dégg ni lii moo ci suñu position ñu jóg nag suuf suñu daal jot na ci Sénégal nit ñi di dox lu baax di dajale nit ñu baax ni ñuy jegentewoo mais lu mu yàqu rek baax na sama yoon nekku ci ah ma tàcc ko ma ree ko ah, ay ca jàmbar nga de ah, dégg naa leen li nga waxee bilaay bàjjo bi bokkuloo ci te boo wéetee wax leneen loolu moo xew Sénégal moo tax kër yu mag yëpp tas kër yu mag yëpp tas su ko defee kon nag ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp ziar ñëpp ndokkeel leen yéen ñëpp ci weer balu leen àq bal leen àq góor ak jigéen ndaw ak mag maa ngi baal ñëpp àq na ma ñëpp baal ñu ngi ñaan weer wi ñu woor ko ba mu jeex kenn bañ a kenn bañ fiy jóge balaa moo jeex nañ ko fekke nun ñëpp ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem su ko defee muy bés boo xam ni ñun dañuy ñëw rek pour magal xale yi waaye xam nañ ni sax ndax bi ma wàccee muy ñëw ñoo ma téye mag mu wàcce daan dox di xaatir xaatir kay tey mu wàccee yore yet ñu téye ko waaye ñoo ñuy ñëw rek waaye manatu la tëliloo ñëpp moom mu tëliloo sëñ Mansour ñaari at ak genn wàll la ma magi Cheikh Tidiane ñaari at ak genn wàll la ma magi waaye sëñ bi mag la mag la su nga defee kon ñu gërëm ñëpp ci seen teewaay gërëm njabootu sëñ Moustapha yi mu jur te sant ñu si parce seen Cheikh Tidiane si ci ziar bi daf ma wax lu am solo daf ma ni na ngeen ànd yàgg sëriñ mbay ngeen jiitu Maodo Pam may topp seen gannaaw ak seeni rakk man su ma xamoon it xamatuma yéene xam rek man nangu ko su ko defee ngeen boole ca nag doomu seddil Hadji Malick yi santul si te mooy ñi seen maam yeeg seen bàyyi dawoon ànd ak Seydil Hadji Malick di ko jàppale ci liggéey bu rëy ba mu def ci Tiwaawan ñooñu ci kër gi lañu buñ leen ci boolee ci lañ bokk buñ leen ci boolee ci lañ bokk mu ni kon ngeen boole ci ñooñu ngeen dajee waxtaan lu ngeen ma sas danaa ko def mu lu ngeen ma sas ci jumaat Seydil Hadji Malick ji danaa ko def ñu ngi di waxtaan di sét di tan di tan la bu ñi dem jox ko ko ni ko li la waaw ndax daf ma ni ni il faut beneen loxo dugg ci de da ngeen di daje yéen ñi Hadji jur ak doomam yi mu jurul yi si te mu li ci sama wàll ma jox leen ko bu beneen yoone keneen ku ci am wàll def ko fekk am na benn mbokk bu ñëw seet si ma te mbokk ma kat bokkul ci tariqa bi keroog ba ñuy sarxal sëñ Mansour mu ñëw ni ma dama bëgg nga sas ma ci jumaa Seydil Hadji Malick ji ma ni ko ñun nag du ñu sase ma ni ko jàkkaat juma sëñ Babacar daf daan wax lu waay man teggulu ma ko ko lu waay manul teguma ko ko ñun tam loolu suñu waxi lu waay man ci juma Seydi Hadji Malick teguñu ko tegguluñ ko ko lu mu man teguñu ko ko mu ni man sas naa sama bopp cent cinquante millions danaa la jox léegi chèque cinquante millions par trois tranches laa koy joxe dindi ba jox mu wër Serigne Mbaye ak Maodo jox leen ko bii nga wax jubóotu ba leen doon waxtaan ku ko gis si lii mu ma gën su ko defee ne waaw waaw may nu tuuti rek nu àggal may nu tuuti rek nu àggal dafa saf lool fii su ko defee <coughs> loolu moom la ñu doon ubbee rek waaye ngeen toog tuuti rek ba ñu àggal euh, dañuy ñaan rek yóbbaale leen ñaan gi innamal a'maalu bi xawaatimiha su ko defee tabaarakallaahu mu wax ma loolu ma woo Serigne Mbaye ni ko demal ubbi benn compte mu am deux signatures mën na am contrôle ndax lu amul contrôle baaxul mu dem ubbi ko def ko ca bërki dem la ma Macky Sall téléphoné ni ma man dama war a participer ci jumaa ji su dégg nu ubbi ngeen compte loo ci bëgg ma yónnee ko ca compte ba wala ma yónnee si leen ko man ko boo ci def baax na boo nu ko yónnee si nun ñëpp koy gisandoo def ko ca compte ba boo ko defee ca compte ba wax nu koy nu ba فهل بدا برق ثغر من ثنياتي أم لمع برق بدا بين ثنياتي شمس المعارف بل نجم المفاخر بل آه. بدر الدجى سرف فيض الفيودات